aousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ina ibaadi laysa laka alayhim sultaan wala wu yaxsimuka min anas ya allah barke borom tuba eh, ginaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh Maodul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér eh, tey ñoo ngi fii ci jumaay Touba eh, toog ak sunu kilifa yi nga xam ne tey jii ñoo fi teew teewaayu sëriñ Afi Busi al imam bu ñu tuddee sëriñ Abdul Ahad Cerno mi nga xam ne mu jiite relation commission culturelle bi nga xam ne mooy taxawu liggéey bi fii ci jumaa ji eh, ak sëñ Abdou Lahad maam Asta mi nga xam moo jiite commission sociale relation extérieure eh, naka jëkk itam ñooy ànd ci wàllu bitim réew ci lu yaatal liggéey bi eh, tey jii nag sunu jataay bi mu jëm ci jot li kàddu yi cant ak ngërëm yu bàyyi ko ci al imaam sëñ Afi Buso ci liggéey bu mag bi nga xam ne moo doon jaayante ki nga xam ne maanaam ubbi woon nañ ko fi ci jamono yi mu tàmbali woon te jëmoon ci añ yi nga xam ne mooy añi yi eh, jëm ci mbooloo mi liggéeyal Cheikh naa si Ahmad al Xadim fii ci jumaa ji te waa Angleterre eh, jële woon fii xalaat bi yóbbu ko Angleterre bañ eggee jaayante ci Serigne Touba ba jël ci juróom fukki àjjuma ak ñaar mooy at boobee nag bañ ko defee ñu am ci taw tawféex mooy atum 2023 yàlla dogal bi ñu màggal see nag Euh, gaaral ko sëriñ bi dem ci Cheikh Mamadul Muntaxa euh, seedal ko liggéey bu mag boobu nga xam ne amoon nañ ci yéene euh, ngir taxawu ko jàppale ko daayira bi ci ñiy liggéeyal sëñ Tuubaa ci jumaa ji ba amoon ci juróom fukki añ ak ñaar bañ ko defee sëñ Aafiya bu Saal imaam ubbi woon ko nag yaatal ko boole woon ko ñi nga xam ne tam ñooy membre yi ak jëwriñ yi liggéeyal Seexul Xadim ci daayira bi te ne ci biti ñooñu itam daat ci wuy si jàpp ci ba liggéey ba eggoon ci 124 ajjuma yoo xam ne amoon nañ ko 124 ajjuma yooyu buñ ko xoolee day mel ne 2023 ak 2000 euh, maanaam 24 euh, yàlla dogal tam ñu gaaral ko Cheikh Mamadul Muntaxa euh, ànd ak daayira bi leeral ko jaayante gi fi fi fi fi mu tàmbalee ba ba fi mu egg si sëriñ bi am ci mbégte lool ba kañ ci mbooloo mi ñaanal leen ci soññi leen ci jox ñu ci ndigal boobee tam al imaam yëkkati ci kàddoom sëriñ Yaafiya ngir liggéey boobu mbooloo mi nga xam ne ñoo ñëwoon indi woon xalaat bi te jëf ci jëf jooju am yéene yóbbu ko ci junni jëf junni jëf mooy junni murid yu yaakaar Seex naa si Ahmadul Xadim ñu jaayante ci yàlla dogal na liggéey boobu nag ba mu tàmbalee euh, ba fii ñuy wax ni le 15 décembre lañ ko tàmbale woon muy jaayante gi bi sëriñ yëkkatee kàddu gi Euh, le 15 décembre ba le 15 janvier moom bi ñu xoolee 124 yooyu ñu amoon 80 dolli ko waan na ci buñ ko xoolee kon léegi egg nañ ci cent ak juma yoo xam ne am nañ ko loolu nag ñu teew fii ci jumaa ji ak ki suñu kilifa yi nga xam ne jëf ji egsi maanaam jaar na ci ñoom ba egsi ci daayira bi ñu ci yëkkati kàddu yi cant ak kàddu yi ngërëm yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci commission bi nga xam ne tam fële sees bi nekk muy Angleterre sëñ Fallou Diop jiite ko ànd ko sëñ Abdul Hakim ak mbooloo mi nga xam ñooy ànd di ko liggéey ñu wax ni daal ñi sëriñ bi mi ngi jaajëfal mbooloo mi ci taxawaay yi di xam le tamit na liggéey boobu tam ñoo ngi ciy gën a soññee euh, liggéey la boo xam ne gën nañ ko ubbi ci numéro yi nga xam ne tam lañ doon jàll jaarale jëf yi. mooy numéro bi nga xam mooy weefu jumaa ji di orange money jumaa ji tam mooy muy 77 686 13 13 boobu numéro moom tamit képp koo xam ne euh, soññe bi agsiwaat na ci yow soo soo ci jaaralee sa jëf incha allah danañ ci jot kon daal liñ ci doon wax daal mooy euh, ñoo gi seedal mbooloo mi ne leen daal jëf yooyu bi ci kàddu yi sëriñ bi duggee gis nañ ne mbooloo mi wuy si nañ ci kon nag egg nañ ci 204 personnes yoo xam ne jaayante na jaayante na noog Cheikh na Cheikh Ahmad ngir añ yi nga xam ne moom lañuy añal mbooloo mi liggéey ci jumaa ji kon ñoo ngi jaajëfal ñëpp di wax ne nag euh, moom na ko sëñ Abdoulaat Ceerno ñoom daan waxee rek fii bàq bu tooy la te it ku fi diir da jam ndax li fi sëñ Tuubaa ñëpp dégg nañ ko wax ne ne fii képp ku fi feeñ da nga feeñ waaye nag mën nañoo seede na feeñ ngeen ci ndax liggéey yëpp rek lu ci daayira bi soxla rek bu ci yëkkatee kàddoom ñu daal di wuy si kon nag soññee baa ngi noonu eh, yàlla nañ ci dajeeg barke waq di xawaay jëlli si na daamoo fi xidmati wa ab lahum maaraamu inna li si na saarahon li xidmati fa lahum diyaara wasal jannati jërë ngeen jëf